dangeen mar da ngeen tëdd biti bu leen ko jege mbokk yi cosaanu politik foofu la déparé Adama ànd ak madame am nañ fii ay weer ah. di di di lekk ca yéen leen wax di naan ci yéen leen wax bàyyi fa lañ leen tere peut-être trois mois quatre benn bis am ku fa ñëw ku sol ab kap sol tuba yu bokkut ak ya fa xew di taal luy saxar ca gémmiñ ga di wax di logg-loggal ëmma gaa yi daal am gan gaa ngi tudd iblis ñu gën koo xam ci seytaane lu fi yàqu moo ko yàq wax la ko tey mu agsi amul badj te bëgg naa dugg ci biir aljanna ji amul badj te ka fa nekk muy xaasin moom xamul nit diwoo ko fi yebal dangay wane badge sinon doo dugg léegi sax gis naa tubaab bi def na ko ba boo ñëwee ci port yi léegi da ngay def nii mu ubbeeku nga dugg walla nga duggalub code treize vingt quatre mu ubbeeku nga dugg léegi tubaab baa ngi def loolu seytaane ñëw mënut a dugg am na fa ñaari fan. ñenn ña nee ña ko dugal ñenn ña ne mbaam ñenn ñi nee ko fa dugal ñenn ña ne mbaam waaye mu dugg na moo tax mbaam foo seen muy ŋaax day tàllal la ca ginnaawam nee nañ ci la iblis jàppoon moo tax jaan it fi fu ñu ko gis rek yar bi dal fi bu jaan ñëwoon fii bala ñoo am jàmm mu dee lu nu def moo yàq su noos ga woon ca aljanna sériewul moo ko yàq jaan moom rek ñun suñ problème ñun ñëpp maag ëmb jaan rey rek donte da nga seen ñu ko koy jàpp ak yi mu nag waaye dana la war benn bis ne la kappit nee nañ jàppkatu jaan jaanu koy mujj du lañ wax de ah dégg naa ko ba tàyyi de waaye daal dugg na ëmm bi mu duggee nuyu leen langage bu bokkut ak seen bos ñu fan àdduna tukki xam nga ko miin asalaamu aleykum bu déggee bonjour la Baye Xaadima Jaxate Kala waxoon akrahu qawman uhayyihim bi bonjour nee na bonjour neexu ko <laughs> waaye lu ci man bi mu ñëwee fekk noos gi ngeen euh, euh, ndékkil aadama ah muruxu ji ko ndekki loo xam ne taabal ji duubul taabal la fruit boo yaakaar rek ma nga ca kaw taabal ji plus nag euh, yu ron yooyu te xonq nag susu waxal moom kat dafa bëri loolu su su susu son ah ah saucisson man de mënuma turi waaye daal danaa ko gis mu def nii ñu koy dugal ci mburu yi yooyu sax am na ci waaye am na fruit bu amut mooy bi leen tere iblis nuyu leen commencé jàmmante ñu fay ko te ki bëgg a yàq sa pas-pas du waxtaan ak yow ci pas-pas ci logique lay waxtaan ak yow te ku bàyyi imaan ñëw ci logique daane la yomb benn oustaz dañoo ma sa invité mag Cheikh Dan bi tey ma ne ko nan briefing bala ñoo dem <laughs> mu ni ma ay ma ne ko man dégguma tubaab déggoo tubaab te moom dégg na tubaab dégg na arab bul fa wax benn baatu tubaab jox ma loxo ma jox ko loxo nu dem <laughs> parce que boo fa làkkee tubaab te mu gën laa dégg tubaab dalay nax waaw lu am solo la gis nga jigéen ji dàq sëy mooy jigéen ji bàyyi bàyyi logique fële tëral imaan sëy ba neex mais boo defee logique danga naan sama jëkkër bon sama nawle la ah waaw kër gi day def may def tuba yi ñaar loxo koy takk mais mooy takk séran gis nga yooyu boo ko <laughs> toppee doo fa am 4 mois mu ne leen mais yéen lii mooy ndekki li ñu ne waaw mu ne mais ndekki des na lan moo ñëwut benn fruit bu tudd xuld xuld mi ngi ci garab gu tudd sajaratul xuld mais fruit bi amu fi grand bisimilah ñu ngi dalal sunu grand frère il s'appelle Iran Ndaw yàlla yàlla yokk jàmm ma ne ki bëgg a yàq da yëkkati ci imaan indi la ci logique bu la ca manee boo ñëwee daf lay daan waaw nga saa seetaan barsaag Real nga seen Real bàyyi paas yu long di def yu gàtt tey la ko Barça di gañe ma wax la ko tey waaye bu kee di def paasam yu gàtt kii def paas yam mënoon moom da koy sonal mu sonal ko rek mooy fubalu Sénégal. <laughs> gaay footballuñ dara tey ndekete loolu mooy seen football ñoom ah yàlla nu yàlla dimbali mu ne leen na man gisuma ci ndekki li fur furi bu tudd xuld ñu ne ko luy loolu mu ne amu fi garab gu fi nekk goo xam ne wattu leen ko ñu ne ko ah waaw as garab la su ndaw su nekk fee mu ne mu ngoog mas ngeen ci lekk ñu mun a ko déedéet dañu ko tere loolu mooy imaan dañu ko tere logique mooy lu tax ñu tere leen ko imaan mooy ah ñu ko tere rek logique ne ko mag mu tol ni yow ñu tere ko ak garab muy ndekki nekku fa te laajul ko ko tere loolu defoon naa ne sa xel weesu na ko logique mu ne ko li li tax ñu tere la ko waxuñu la ko mais man soo ma ko laajee ma wax la ko imaan mooy laa la logique mooy nu mu demee imaan mooy laa jumal logique nag mooy nu mu demee mu fexe ba mu ne ko nu mu demee maa ngi ci cosaanul politik maa ngi ci maaraka la ca tàmbali ba maa ngi ci xew-xew bu rëy boobu te lépp di ca déparé waaw mu ne ko gis nga garab gii kilo la ko tere ci lay lekk mu ne ko yàlla ci mu ne ko ci lay ndëkki te boo ci ndëkki awa di ci ndëkki fin de mois du ko fi fekk mu ne ko waaw ah, ne ko waaw te garab gi dafa am ñaari njariñ benn bi mooy ku ci lekk doo dee bu ñaaral bi mooy ku ci lekk doo folliku mu ne ko kii kay lee tax mu tere ma ko jéego na ci imaan léegi ñëw na ci logique lu yàqu lu bari ci àdduna nag foofu la yàqu waaw léegi-léeg jigéen nekk ci sëyam mook jëkkëram kër gi neex laal ëmma kër gi neex laal bu ñu amee ceebu euh, keccax bu ñu añee ba pare xar guro yooyu waxtaan wa jolli waaye menn màggatum yoor yoor moo fay ñëw jële ko ci iman dugal ko ci logique moo tax màggat yoor yoor yi ñu leen di julliloo julleg yoor yoor ndax duñu am temps dem ci kër jàmbur yi <laughs> Ah, waaw julli yoor yoor waaleykum salaam du dëgg kon ñu daal xëy fas yéene ndékk ca garab ga naka ñu seex sàq mi wanaasu la leen yàlla waxoon seen yëree na fër fër desetuñ dara laa aadama wala hawa wa tafiqaa yaxsifaani alayhima min waraqil janna ñu song garab ya pour fàq ca teg ci seen kaw garab guñ jub nga daw garab guñ jub rek nga daw ndeysaan ba ndeysaan fuddan ne leen fuddan ne man kaay leen fuddan moo leen recevoir may leen kelk xob la quelque car ñu teg ci seen kaw dooru yëg ni ñun def nañ erreur nga moo tax suñu borom bu nit di sëy mu may ko occasion wu fase juboo fasewaat juboo ay boo fasewaatee ah waaw ëmma kooku buñ jubowaatul moo tooñ fase nga ñu jiboo nga fasewaat ñu juboo suñu baram ne téyel téyel kat waaye nga dem fasewaat te kat li ma ci métti Iran mooy bu waa ji fase une troisième fois ba noppi day wut solution encore waaw am na ci ko ma mas a fekk rajo du ñaan ne ma oustaz man de damaa fase sama jabar boo may laaj ba xam lu ci lislaam wax ma ne ko ñaatoon nga fase mu ne ndim yàgg mu ne fase naa ko benn yoon ma ne ko benn rek la waaye ne benn ni ndim yàgg mu ne non deux deux ma ne waaye deux rek la mu téye naat ba mu neex ko mu ne ma yaakaar naa man na trois ah ma ne ko lislaam ne na ko fase jabaram ñu defar mu fase waat ñu defar bu fasewaatee na wuti jabar jabar ji wuti jëkkër bu ca tasee nag bu leen neexee àndaat comme man ngeen dëkk ci fase mu ne ma ah bon lii la wax de mu ne ma am na benn oustaz bu nekk fii ma ne ko am pagaay waaye seetaane xoolal fi mu jaar aadama ba gëmloo ko lim ko gëmloo lekkloo ko ca garab ga wa tafiqaa yaxsifaani alimaami waraqil janna keroog la xaalis am valeur nag ëmma mi waraqil janna xob yooya xob yooyu nga xam ne moom la nit fab teg ci kawam keroog la fo xob ya am valeur ñu tudde ko tey billet billet moo tax moom it mu man la la xob yooy manoon moom mu man ko waaye jëlal journal Sud Quotidien dem ci bitig ba la xob bee man xob yi mënu ko li bi yow di dix mille man journal Sud Quotidien mënu ko kon mbir la keroog la sunu borom ne fuddën mun naa mu ne ko dox nga kóllëre gu baax leen rek laa lay feye <laughs> loxob jonga joo dugg bu tàllalee ñu teg ca laaj ko jonga may malheureusement léegi tatouage da koo ñëw yàq ko fu dën moom boo dee baax na ah boo ko julliwaalee baax na moom bu la neexee sax booy fuddunu ji te sa jëkkër ne la doo dem nga ne ko dem dëgg ndax damay fuddënu ji te doo ci am bakkaar fuddan beneen affaire la ba waaj a romb yonent ba fuddan baaraam bi daf ne waaw góore waay keneen ko fuddan ñaar mu ne ko waaw ñett mu ne ko waaw góore waay boo ko ci gënal bu troisième bi ba tax fuddan waaye daal lekk nañ ca garab ga la leen sunu borom gàdduloon sippi na ko inna laka àllaa tajua fiiha sunu borom ne génn naa ci wala taara génn naa ci wa annaka laa tasmau fiiha wala tadaxa génn naa ci daf ne koon aljanna doo fi xiif doo fi rafle doo fi mar doo fi tëdd biti li feeg lékkoo ci garab gi léegi lekk na ca sunu borom déchargé wu ci ñeent yooyu léegi nag politicien bi xeeti politique yooyu ak yi ci des mooy nekk programme am ba assemblée ba pale ba mooy politique lu fi jële xiif xeetu politique la politique lu fi jële xiif xeetu politique la politique boobu léeg-léeg mu màcc ñu jëm ci politique agricol nga xam ne ginnaaw alxuraan daa joxoñ ca tàmbali ba tudd xiif li ko fi mën a jëli mooy programme bu leer nañ programme boobu dara jiitu ci mbay mbay ëmma politique agri agricole bu jaar ci yoon cim réew moom rekk moo mën a jële cim réew fim réew nekk su ko defee politique boobu bu ma demee ba ci kanam ba ñu toll ci dañuy tànn njiit walla euh, maire walla député dañuy bàyyi xel ci kooku bàyyi xel ci ñooñu parce que mbay sunu digganteeg ndakaar sunu digganteeg Xombal sunu digganteeg Tiwaawan bu ñu amoon politique agricole nun ñëpp nu nekk baykat wala ñi ëpp ci ñun nekki baykat léegi tey ku xiif lekk te lekk li ngay bay wala consommer local defe naa lu ñu ko waxee consommer local dafa yomb lu dund xam nga man mën naa ne benn élément la ci laa ci ensemble bii neemaa gee élément la dibbutoon gee élément la lu dëgg léegi ñun ñooñ ñooy jàppalante ma ak ñoom su ma bayee ci dëkk bi ñoom dañ ci participer soleil bi participer li may bay ñor ma for su fekkee suma biir dafa metti ñoom ñi ma bokkal assemblée bi ku ñëw rek mën a faj biir bi moo tax bu njëkk boo sojee rat day baxal am déet boo xëyee dem boo njàmbataanee dibbutoon ngay baxal bu si biir méttee walla amoo appétit nga xas-xasum ndimb ni ko ndaw ku ndaay defe di lekk amu appétit nga dem ci dimb ga xas ca lu tax parce que booba kenn benn élément nga ci ensemble bi mais léegi nun élément la ci ensemble bi mais defutuñ consommer local li ñu lekk lépp dañ koy emporter moo tax boo feebaree li lay faj dañ koy emporter ah way ñu dañuy bañ Iran dañuy bañ gisoo ni nu ni nu ni nu ni bi mere suñ cheikh moo ko doon wax de cheikh ma Tidiane si almaktum nee na nature bi dañ ñoo mere ñu ne ko lu xew mu ne ñu daan lekk ñam bi démb ak ñi koy lekk tey laaj leen waaw ñam bi c'est am na jamono yoo xam ne pulloox lañ ko wax pulloox mooy buñ ko dugalee ci taal bi ba jikko ji soppeeku bu ci duggagul nag tudd ñaam bi <laughs> na ma ndaw ko daa baal imaam xaal jii mas tojub xaal seex safu suukar léegi fukki xaal ngay toj benn saf suukar ba ca des xaw a saf way ji ci puut fi nekk nii la la ca neexut moo ëpp la ca neex lay tax nga lekk fa bu neex mooy nga am fa client rek mu lay tànnal sinon doo lekk benn mango bu neex ndax mango ji dañoo mere ba demee boo demee Europe nag boo gisee mango bu ñu def ci pot nag nga defee ne yaa way mbay fii nga war na waye mbay mango jooju mooy mango ji fii sax lañ koy jële def ko fa la ko def ko seen pot yi nga dem jaay la ko lu seer man fi ni ngeen baal ma su ma demee Espagne ëmm damay jëkk ba min wi ma yëy gerte teget gerte googu fii la jógee ñu yóbbu ko foofa mais ba nañ koy saafee foofa moom daal la kon sunu borom ne ko fii doo fi xiif politique agricole juddu mu ne ko doo fi rafle doo fi rafle artisanal juddu mooy gaa yi nga xam ne lu waay sol ñoo ko def ñoo ko ñoo ko ñaw ba ci dàll yi heure bii démb maa nga jaar ngaay di di ñibbisi foo xool dàll la te kat bu ci ngaay bindoon made in Italia yëpp jar dañu complexé waaye ñu bind ci made in ngaay meexe kenn du jënd fi ne bu ñu jëndee dàll bu seer Iran duñ toogee nii de nii la ñuy toogee fab suñ tànk bi gàll ko ci bii pour gaa yi gis dàll bi te dàll bi ko dàll wi étranger la <laughs> ngeen baal ma nag yéen ñi waaye wax naa dëgg nag kon gis nga suñu borom ne ko doo fi xiif ne ko doo fi rafle bi mu ne ko doo fi rafle rek politique bee daal di juddu mooy artisanal gis nga réew moo ko amoon te xam ko ëmm tuubal ko doxal ko yàlla xam na ne day jariñ gaaya jariñ waa ji jariñ gaaya ña koy defar jariñ waa ji tey loolu liñ ci mën a créer ci ay métier suñ ko sécuriser kenn xamu nu mu toll waaye malheureusement <laughs> politique artiste artis artisanal waaw daal juddu ñaari yëf juddu bu ci nekk nag xeet la ci politik xam-xam a koy def ci bopp akub yar ak orientation mu ne ko ñaari yëf waa na naka laa tas ma ko doo mar doo mar mar ki ñàkk ndox a koy def ki naanut beneen politique judd politique boobu judd muy mbirum ndox ak laajoo ci ndox aleyhi salaatu salaam def ne woon nangeen ngeen fexe ba ñett bu ko privatiser ñett bu bëgg xaalis mukk ba privatiser ko almaau wannaaru wal kala'u wal kala'u àll bi def ay terrain na ko na nekk domaine national ku soxla mu yomb la dëkkuwaayu yomb am déet mu ne ndox bu leen ko privatisé domaine national la moom leen ko yéen ñépp ñu ne waaw mu ne courant bu leen ko privatisé mbokk yi teg leen seen baaram foofu sama grand nee na daa am conférence bu koy xaar mu wax mu wax ñaari baat eh, bisimilah wala fukki baat jërëjëf euh, yaa oustaz Alioune laata ñu ñuy ñu lay delloo dañuy introduire ki nga xam nag ni moom mooy parrain bi mooy parrain d'honneur bi ah ñu tànn koo xam ni kii ku wax turam xel yépp dem ci Sud FM ku wax turam xel yépp dem ci Sud FM ci rajo bi indil rajo bi lu baree baree bari te moom soxlaalul rajo bi dara kooku mooy chef desk religieux bu Sud FM ñuy nuyu oustaz mbay Faye yaa imam mi ngi nii toog di àllaaji Ibrahima Badiane Iran Ndaw moom mooy parrain d'honneur bi mooy parrain conférence bi dañ koy sargal léegi léegi léegi laata ñu koy jox kàddu gi oustaz Mbay Sàll mi ngi teew jëf Iran ñuy ñaan soxna Bintu Gay Aja Bintu Gay mu ñëw ndax mooy jox teraanga yi Alaaji Ibrahima Badiane laata ñuy jox Alaaji Ibrahima Iran mu sànni ci ay kàddu ndax dafa am conférence te waxtu waa ngi bëgg a xonc kon nag ah waaw Alaaji jógal bisimilaay wala boog dangay ngay taxaw rek walla nga ñëw fii wàccal nga yegg si ah la presse ñu ngi leen di gërëm bu baax Ibrahima Ndiaye Thiès 24 Thiès Info jërëjëf kon nag waaw aca mu ngoog ñëw leen nii ci digg bi Adja Bintu Gay suñu jigéen moo koy jox cadeau yi voilà pour la postérité merci beaucoup Alaaji indi ma la tegal la fii mu ngoog aha waaw acca indi diplôme bi mu ngoog wax naa ko dinañ ko joxub lijaasa puis jox ma lijaasa bi ma tekkil ko mu ngoog jox ko lijaasa bi lijaasa baa ngoog dama bëgg nag ngeen taxaw ma tekki lijaasa ba liñ ci bind waaw mu ngoog àllaaji jox leen ma lijaasa bi diplôme de gratitude pour service rendu dans le cadre du rayonnement de notre radio et en reconnaissance d'un long et fructueux compagnonnage, le personnel de Sud FM Thiès décerne ce diplôme de gratitude à Seydi El Hadj Ibrahima di Iran Ndaw ankay lijaasa bii Sud FM moo ko jagleel teg ko ci loxo Alaaji Ibrahima Badiane Iran Ndaw ndax kat li mu seetlu mooy ameel nañ ko njukkal lu mag a mag ndax yàgg na ci rajo bi te masu koo beddi e kon nag lijaasa bii Sud FM Alaaji daf la ko jox en guise de reconnaissance maanaam xam yaay kan yow mii boroom xam-xam bu sell bii ñu xam yaay kan ci rajo bii nga xam ni yokk jëme nga ko kanam ak sa xam-xam jëme ko kanam ci ak sa alal te soxlaaloo ko dara jërëjëf yal na la yàlla fay rajo bi nee na yal na la yàlla fay dañ lay bàyyi nga toog yéegaat boo yéegee ah ñu jox la micro bi nag nga wax laata na ñoo yolu ñooy yeewu rek nga dem ci sa conférence bismillah jërëjëf ma bëgg ngeen tàccuwaat ko bu baax waay allah ji dégg nga mbooloo mi nee nañu yaa ko yelloo asalaamaaleykum mbokk yi fi daje jiital oustaz Alioune Sall ci nuyoo bi ndax mooy sunu gan gan nag lañuy njëkkee bu ñëwee guddi ñu jël reer bi jox ko su desee ñu lekk bu desul ñu poñ ci mburu lekk kon nag mooy sunu gan te di boroom xam-xam di nit ku sell di nit ku baax di nit ku maalu man ci moom rekk lay wax ndax ku am ku mel nii doo bàyyi ba mu dee ngay naan Alioune Sall lii laa déedéet dangay wax mbaaxam wax itteem wax léppam su ko defee bu fi jógee boo ko waxee duñ ne dangay fen nit day xam tey day xam li xew moo gën su ko defee ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg yaa ko xam yàlla la ko yàlla defal ñu jëm ci Baye Kamal nag mi nga xam ne mooy DG rajo bi DG bu mag ba nag mooy Baye Omar Gueye moom kenn xamul looy wax ci moom ndax mbaaxam baax na yaatu na bëgg na nit wax na ma loo xam ne duma ko wax mukk duma ko wax mukk te mu wax ma ko duma ko nettali mukk nit waaw loola ku baaxul doo ko doo ko wax kii xam na ko la ma wax donc loolu nag dañuy sant rek Baye Omar bu baax sant Kamal bu baax Kamal nag euh, euh, ku mën a njaboote la ku mën a njaboote la parce que day jëlale rek ak jéggale loolu dafa baax euh, kilifa day jéllale kilifa day jéggale mais bu dee lu ñëw nga wax ko baa lu ñëw nga kaas ko ah du baax kilifa dafa jéllale kilifa dafa jéggale loolu nag lañ xam ci moom moo tax bi ma waxee ne ma moo bàyyi am ma njaay ne ma ah ren de sunu conférence bi oustaz Alioune Sall sa rakk di def moom lañ fas yéene tuddee la ko nga nekk parrain d'honneur bi ma ne leen nangu naa ko bu baax nangu naa ko sama ñaari loxo ak sama ñaari tànk loolu laa leen wax am déet voilà ma ne leen nangu naa ko parce que itam am na loo xam ne ku la ko tuddee wàcc na manoo koo fay mun loo koo fay mukk kon Cees nag mënuñu leen fay ndax ñi fi daje ñëpp maara day taali ci ay nit kooku bu leen neexoon du ngeen ñëw bu leen neexoon ngeen ñëwee neneen waaye tabaarakallaahu ñëpp ñëw nañ eh, ñëpp eh, te nag am na ñu ñëwagul man dama lay bàyyi ñoom rek bu ñëwee nga wax ak ñoom waaye am na ñu ñëwagul su ko defee loolu mooy kàddu yi ah xam naa ne nag eh, bu fekkee waddul ci yoon wi lii xeeb naa ko trop ñaari enveloppe la bu ci ne cinq cent mille ci ne ñaari enveloppe bi bu ne cinq cent mille ci ne li tax ma def ko noonu cinq cent mille bi pour organisation booba léegi gisu leen ma pour organisation bi cinq cent mille pour sama soutien la mu nekk muy un million moom laa leen jox xeeb ko nag xeeb naa ko torop torop torop torop su ma sañoon jox leen dix million wala trente million mais awma ko xam nga kuy jaay radi ak galaas ak ndox mën a am <laughs> man aw loolu su ko defee loolu moo ci nekk su ko defee bi ci des ah ki ñu tuddee bis bi mu ñëw di ñu defal conférence muy Oustaz Alioune Sall sama rakk moom laa jox deux cent mille yii bu ko defee moom itam mu def ko penalty nee bu ko defee daal lii mooy li nga xam ne def naa ko Mbaye Faye ñu ngi laa gërëm ñu ngi lay sant dama laa gisuloon ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Baye Amma Ndiaye di ko sant bu baax a baax ndax itam fu mënul ne nga demal ko fa yaa ngi dem fépp di lijjanti lépp lépp yaa ngi koy def kon nag dañ lay sant bu baax sant Mansour Ndaw moom itam di di sunu mbokk di sunu deret boo defee daal loolu lañ leen doon wax bi ci des nag moo di ku am gan danga koy tere teralee déglu ba mu jeexal man bu ma amuloon fu ma jëm fii lay toog fii lay toog ba mu jeex ndax kii du ko bàyyi gannaaw waaye nag gannaaw am naa conférence te ca laa jëm te xam naa ne sax boobu est-ce que duñ ñaan ñu nga may xaar boobu ba léegi mën ne leen damay jaar Thiès ci Oustaz Alioune sàll buñ jullee ci lay dem far julli ne ñëw naa wa tabaarakallaahu ah, kontaan nañu bëgg nañu di gërëm waa site internet bi ñoom itam ñu gërëm leen sant leen bu baax ndax itam fi ngeen di yóbbu waxtaan wi ñun mënuñ ko faa yóbbu kenn ci ñun oustaz mënu ko man mënuma ko yéen a koy yóbbu fu nekk kon nag jar nañu gërëm leen sant leen ndax seen taxawaay dafa rafet seen itte dafa yaatu kon nag jaageen jëf jaageen jëf jaageen jëf yéen waa site internet yi ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant waa cees yëpp di leen gërëm di gërëm jigéen ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm jigéen ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn ñëpp la sant ñépp la gërëm ñëpp la ñaanal yàlla yàlla yàlla faj seen aajo ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi gërëm mbay sa mbay euh, Babacar Babacar waaw moom itam tabaarakallaahu muy ku sawar euh, ku jàmbaar ñu gërëm ko bu baax defe naa ne daal loolu moom mënuma ko woon a ñàkk wax waaw sama jigéen ñi moom <laughs> ñëpp ah waaw Sophie Batsi Fat Ndiaye ñëpp ma leen tuddee dama fay fanaan rek waaye ñëpp ñëw nañ ñépp jigéen ñépp ñëw nañ kenn desul ñëpp a ñëw yal na leen yàlla fay yéen ñëpp yal leen yàlla fay defal leen teraanga defal leen faju aajo ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa waaye kontaan naa de damaa kontaan ba ëpp ndax fii ñu ko defee ak fii ñu ko waxee ah doy na waar de kon fii ñu ko defee waxee ko fi fi la jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kontaan naa torop torop torop torop ba fa kontaan yem bég naa ba fa bég yem ndax itam nit bu la defalee loo mënta defal sa bopp danga koy sant kon ñu ngi lay sant bu baax di leen gërëm bu baax yéen waa Sud FM fa tabaarakallaahu loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne dama noonu dama koy dawal waaye mënoon naa bàyyi sama rakk rek ma wax waxaaleel ma waaw bu ko defee loolu rek mooy kàddu yi ma jox am ma Ndiaye bisimilah. wallaay dëgg la aha dëgg la dëgg la dëgg la jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf aha waaw aha jërëjëf sëriñ bi jërëjëf sëriñ bi wallaay dëgg la acca wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ci kàdduy sedd yooyu ah ñuy gërëm aussi ñi nga xam ni teew nañu te tudduma leen woon ku mel ni monsieur Babacar Pascal Ndione mii di nit ku baax yaa imam masuñoo tànqam lu ci dara c'est un responsable politique waaye nit ku baax la ñu koy gërëm di gërëm docteur Babacar Diop mi fi jóge léegi monsieur le maire E di gërëm monsieur le maire da Ndiéyène Sirax Serigne Fallou Fall moom tam mi ngi nii toog di nitu diine gu mag jiite maire bu Ndiéyène Sirax ñu ngi lay gërëm di gërëm Maodo Malick Mbaye président gëm sa bopp jërëjëf gis nañu ndawam Serigne Ñang euh, di gërëm Mariama Badji euh, Africa Feliz Sénégal di gërëm maire Khady di gërëm Adja Fat Ndiaye soppey ma Bintu Rasool nday Wore Mbay fàttewuñ la Mama Ami Seck ca Medina Fall imam Moussa Ndaw ah sëñ Mansour a ngi nii toog mel na ni imam toog na Ousmane Diop responsable politique zone nord jërëjëf ah monsieur Daha Kanté junior ñu ngi lay gërëm Abou Ly ADK gis nañ la partenaire de Sud FM Adja Seynabou Diop directrice école Mohamed Diop jërëjëf Adja Serigne Habib kan responsable politique oustaz Amath Niang jërëjëf ci jàngal bi ngay jàngal suñuy doom ak suñuy jarbaat moom mooy euh, oustazu jumaay dixième ji ah Adja Coro Diop fàttewuñ la ah soxna Maajoor Fall mu ëmma Njaay moom tamit teew na mi ngi nii toog <laughs> kuy xalam di ca jaayu <laughs> barke ba kuy borom jeex na Adja Coro Diop wax naa ko Daaxa Kanté bu grand parti Serigne Fallou Fall maire Ndiéyeen Sirax wax naa ko Adja Soxna Ndiaye ah Mori Xuma fàttewuñ la magget jàlloo ah mu di jëppi waroon naa ñëw na am mi ngi ci mbooloo mi ah kookooy sa plus fort waaw xam nga li ma la wax aj waaw ah Serigne Niang maa ngi ci ko kenn du ko fàtte tradipraticien Serigne Niang nit ku baax docteur ji Sarr responsable politique soxna Awa Xollu Jéey sama jigéen Njaase Ñing fàttewuñ ko Ibrahima Kumba Sa moom it teew na Adja Ayda Gueye gu jàbbi Makki Njëgën délégué de quartier kër maam elage njoba sow njoba sow jërëjëf xaritu rajo bi Adja Ndey Njaay saa suuna fàttewuñ la Ndey Fall député dixième fàttewuñu la waaye it laata ñuy jox imaam rek ñu jeexal list bi euh, oustaz Alioune Sall may nag Iran moom it mu yeeweeku a Sidi Jaxate promoteur de lutte jërëjëf Nafa Fall cadastre jërëjëf daam ah mu ngoog yaat ma gisee président UNCS défenseur des consommateurs Serigne Niang wax naa ko tradipraticien oustaz mbay Sall wax naa ko monsieur Babacar Pascal mi ngi nii toog jërëjëf monsieur Ndione imam euh, Amadou ñaŋ Habib Kane wax naa ko Aziz Diop Forum Civil mi ngi nii toog kii moom c'est un défenseur acharné du pouvoir d'achat sénégalais ragalul benn yoon dëgg gi nga xam ne moom lay wax toujours état du Sénégal jërëjëf Abdou Ba Ndiéguène jërëjëf responsable politique euh, Ndiasse ñi ngi wax naa ko oustaz Ousseynou Mbaye représentant Malick mbay DG ANAMO moom it teew na ay dëgg dëggay gujaabi réew mi mu ngoog kon nag euh, jërëjëf Clay oustaz yaa ngi nii ah yi nag ku ci bëgg lu lu koy wecciku junni Clay yaa ngoog mi ngi ci DJP mii moo koy jaay oustaz Alioune Sall moo koy indaale yi ñuy jaay cinq mille francs kenn ku ne na ci jënd dix am na bu dix am na bu cinq mille képp ku ci jënd sa aajo dana faju ku ci jënd rek sa aajo dana faju na ñépp jënd ci kele yi bu benn kele des du joxe rajo bi nag te kele yi jeexul kele yi day jeex rek bi lay wàccaat ngeen lekk seen yàpp njar seen ndox naan ay ca ay ca ay ca ci kele yi ne lii kat tabaarakallaahu yàq la yàpp yu ne léegi nii duufee nii xaw mu koy sànni yàq la léegi nag ginnaaw loolu nag biñ ko bàyyee yàlla ne wa maa zalamuuna taxawal nii rek indi indi indi indi indi rek indi indi bu diine jox ma jox ma bu diine pour que cinq mille indi aleykum salaam jox ko bu cinq mille joxal kële cinq xaaral delloo de ah ah waaw la xaar bañ pare ay ca ñëw leen gaaw ñëw leen delloo ko cinq mille xaaral ba mu am wecc ñëw leen ñëw leen ñëw leen fii rek ñëw leen fii rek jëlal fële jëlal fële sëñ bi jëlal fële jox ko ñaar nañ ñëw indi waaw góor a waay bu dix mille acca joxal kii bu dix mille ayca ayca ayca ayca ñëw leen waay waaw ah, waaw kay góor ñëw leen ñëw leen ñëw leen pap gi jóge noonu waaw kay jógal yoonu foofu waaye ñëw leen boog itam acca acca acca acca ayca ayca toog rek amul solo kii kii lépp lu mu def kenn ku ne war nga cee barkeelu oustaz Alioune Sall gis nga doo déglu rek walay sa nafoon walay sa nafoon bilaa amalin wa taabi an sunnatal muxtari taxtani dañu ne kenn mënula bëgg dara ok cinq mille la ok ah ok ayca ayca ayca may leen ñoo ñu ñëw may leen ñoo ñu ñëw aw leen góor waay ok nit kay bu lay defal dara danga koy defal dara nag waaye wax ba pare ñibi eh, ñu naan kele jeexul ak gaawal gaawal gaawal gaawal ñëw leen waaye ñëw leen bu leen ne jamono daa naqari jamono naqariwul kii bu ngeen ko jëndee mën naa nekk seen ubbeekaay Alioune sàll mii li mu defar ah ku ko jënd xam ko jënd xam waaw non baal dañuy jaay fi nekkee dañuy jaay moom kuy jënd nga ñëw jënd rek ok jaayal kii bu 5000 jaayal kii bu 5000 xanaa bëgguleen leen bi continuer de ñëw leen waaye itam kuy def dara nag da caa bëgg dara. am am yow eh jox ma bu cinq mille yow waaw kóore waay jërëjëf jërëjëf indi bu cinq mille bu jox bu cinq mille sëñ sëñ bi sëñ bi am ok jërëjëf jërëjëf bu cinq mille waaw ñëwleen ci gaaw gaaw leen gaaw leen gaaw leen kii li mu fi wax jar na lu ne jar na lu ne mu mu yóbbuwaat kele yi nag moom gàcce la gàcce la de waaw ah, ñépp ñëw na ñépp ñëw ayca ayca ayca ayca jëlal jox ko bu cinq mille ok ay cawaay aw leen góor wa waaw kay waay waaw xaaral kii ñëw jox la aw leen góor waay joxal kii aleykum salaam fële la acca waay cinq de cinq mille de moom bëriwul <laughs> bëriwul ci jamono bi de ku ne nag jamono daa naqari ba tax jënduloo ci jamono day naqari ba faw ci yow maa leen ko wax moom kay ku yebu jëngu rek jamono dana naqari ci yow ba ba faw indi bu cinq mille waaw góor waay kaay jox ko joxal kii waaw kay waaw waaye nag bu ñibbee te jeexul ah loolu itam du xam nu muy niru ayca ayca ayca ñëw leen waay kii lim fi wax rek jar na jënd lépp yóbbu ko lim fi wax ci wàllu mbay wax ko fi ci wàllu aadama wax ko fi ci wàllu rafle ga mu rafle woon wax ko fi ci duufa xiif lépp mu leeral ko wax dëgg yàlla nag jaadu na nag yéen itam ngeen jënd kii nag ah, ko jëndul nag sa affaire la moom xam naa ne moom jamono du neex ci yow ah la ilaha illallah man kafuma ku ci jëndul jamono du neex ci yow de ayca ayca ca ay ca xaaral ñu li ñëw ayca waay ok am ma njaay ay ca ay ca waaw ana docteur Jibi Jibi Sarr waaye itam yow la xaar waaye ah jënd nga ana ana sëriñ Babacar Pascal Ndione anamu ah yow ndeke yaa ngi toog déet jëndul waaye itam jëndul waaye bàyyi leen la waaw kay waaw kay kay joxal kii 10 indi jox ko jox ko ñaari carte jox ko ñaari carte uh-huh. indi benn bi bu bu looy jënd bu 10 000 waaw moom mu ni ñaari 5000 la ñaari 5000 la waaw waaw. Uh-huh. rafetal loolu nag ah koo koy ah ana ki yor ana indi itam indi kii ah yow ngay wër rek cinq mille jeex na dix mille des Cheikh Ndiaye Daabay anamu ana Cheikh Ndiaye Daabay waaye itam ah borom Daaru Rahman yaa ngi toog dégg ñuy wax ah itam Cheikh Ndiaye ah xaaral rek xaaral baaxal baaxagul ayca indi waa ji lii dañ koy jaay ok jox ko jox ko ok wóyul kële. alaaji ana daaxa kante cinq mille jeex na de dix mille rek Cheikh Ndiaye daabaay dix mille des waaw ok. ok. nag ñi nga xam ne seen loxo seen ginnaaw ñu ne nag fii. ñu gën koy daaxa kante jëndoo jox joxal ko ca ayca ayca na ñëw balaa ko balaa commencé yee des hmm? lii moo des ki lii waaw kay da ngay jënd Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall sëñ bi sëñ bi bàyyi ko ba mu pare bàyyi ko ba mu pare Thierno Alassane Sall la ci la bokk ci des indi waa ji lii moo ci des ah waaw kay yóbbu ko ci taabu ji Thierno <laughs> Alassane aca boog ñëwal ci kale yi acca boobu eh, indi indi indi kele yi indi kele yi indi indi indi fii ba pare kele yi di oustaz ko defee bu ci yuuxu woon sax dagan na <laughs> di mille dix mille bu ci yuuxu woon sax dagan na taxawal taxawal taxawal taxawal ah. jërëjëf mu ngoog ku soxla clé yi na dem fële ca taabal ja taabal jële soxna Bintu Gaye di jëppi ak Balla Sarr toog ku soxla clé na fa dem incha allah dina am clé mu ngoog ñuy gërëm euh, délégation Tostan teew nanu sama jigéen madame Ndiaye nga ne di gërëm soxna Asi Ndongo madam Ndaw teew na di gërëm Ndey Mariam Sow kooku nag ah mooy plus fort di je mbay ñëw na soxna Wore Fall madame Laye jërëjëf Babacar Seck Mar Yacine gis nañ la Cheikh Vieux Sène ah kooku nag mooy tayeeru sama waa ji mooy tayeeru Kamal teew na jërëjëf monsieur Thierno Alassane Sall jërëjëf république des valeurs jërëjëf kii nit ku baax la bi nga xamee ni campagne bi ñëw na euh, Iran Thierno Alassane mii dafa liggéey ak Sud liggéey bu mucc ayib tànn ko comme rajoom rajo boo xam ne bii moo ko gunge ci campagne ba mu jeex moo taxit monsieur Sall merci et félicitation pour les résultats les bons résultats que vous avez obtenus merci da nga ko mérité ah waaw mu ngoog di gërëm Adja Kumba Ba soppee da baax ca Somme Maodo Sarr impôt et domaine représenté par sa sœur Oumi Sarr jërëjëf kon nag li ñuy def mooy delloo kàddu gi ah ci deuxième partie bi ndax euh, bu tàkkusaan jotee dañuy tàggoo alhamdulilah yal yàlla nangu Sud li ngeen def rafet na d'accord ñun ñëpp ngeen ko defal ndax Sud benn groupe la bu ñu bari bokk kon nag lii ngeen defal Iran nun ñëpp ngeen ko defal bu nu àggee incha allah danu am lu nu nettali te daan ko nettali donte du nu nag waaw ñu dalal sunu doom baay maa koy doy léegi ne ko soxna si yàlla da ko xiir ci man ba léeg-léeg mu ñëw ca daara ji ne nàngam nàngam eh, ma yem foofu ëmma bi Iran di yëkk ci teraanga yi sànq nag daf ma jox benn penalty xam nga Sadio Mané daf daan raté léegi mi ngi marqué man nag musuma raté bokk yi ci yéen ñiy door a ñëw dañu tolloon ci waxtaanu lislaam ak politik ma jéemoon a wane ni mu ko définiré waaye jéemoon a wane cosaan la ma doore ko ci keroog bi borom bi décidé wàcc nit ci kaw suuf ba mu ko bindee ba noppi daf ko jàngal njàng ma mooy politik ndax jàngal na ko ku xiif nooy def ba lekk jàngal na ko ku rafle nooy def ba sol ma tolloon ci jàngal na ko eh, ku mar nooy def ba naan bi ci mujj mooy mu jàngal ko ku bëgg a dëkk nooy dëkke kon boobu mooy ñeenteelu politique yi muy peut-être politique bu fekk nu lañ koy waxee aleykum salaam ñu ngi lay nuyu baax a baax di la jox cër bisimilah. mu ne ko inna laka an laa tajua fiiha wala taara wa annaka laa tasmau fiiha wala tadhaa wala tadhaa mu ne ko tëddoo tëdd biti ëmm politique habitat bu bu jaar ci yoon bu doxee nàngami at ñi doon luye tem seer dañuy mujj sol seen dàll di wuti ku ñu luye li tax mooy politiku dëkkuwaay ki koy def di wax ne lii ngeen di joxe dalay wax loo mën a joxe jamono bi ñuy tàmbali jamonoy Senghor Sicap ah aslem gardien yi ci kër yi sax mën nañu am kër ñu yoroon saretu fas di dem sax mën nañoo am kër lu tax kër day àqu nit cim péncam wala taddaha su fekkee nag léegi loolu doxoon na ba ñépp ku ne am sa yëfi bopp ci wàllu kër kuy luwe da ngay wër koo luwe gisuloo pencum laayeen nga xam ne ku juddu bu ñu la ngénte ca ngoon nga may la jëkkër kuy baale koy yóbbu oustaz doom ko yóbbu ñépp am nañ jëkkër xanaa nga doxal a dalaas doon doxal waaleykum salaam da dem bisimilah man penalti moom ci rek laa aay ju Cheikh Ibrahim ama waaw noonu la euh, ngeen baal ma ma ubbi benn parenthèse kale bii ma doon jaay mooy sama tafsiru vendredi ñetti at yi ñu weesu lañ ci boole muy surtu zaariyaat aya cinquante fa firru ilallah soixante-six wàccuwaay yi doom aadamay yi wàcc jëm ca boroomam laa ci dajale bàyyi woon naa ko nag ndax day lamb ci sama loxo yi ñu naan nañ jënd naa nga ma lamb ndeysaan yàlla ma yàlla yërëm benn femme moo ma doon saraxu rek ma nga fële ca France di ma saraxu ba ma defar ko kon 66 émission la moom lañ ci dajale gone ya defar ko di ko di ko defar ngeen baal ma ma tëjaat parenthèse bi dégg ngeen <laughs> kon ñeenti xeeti politique yi la sunu boroom def cosaanu pénc mi ku xiif na lekk ku rafle na sol ku mar na naan ku màgg na am fu mu dëkk rek te bu ñépp amee fuñ dëkk day am yu muy tekki mooy luyaas bi day yomb dëkk bi day set embouteillage bi day wàññeeku laaj ko Kadhafi cam réewam yàlla na ko yàlla yërëm lii ma doon wax nag nit day wax de moom man na ko wala ay mbokkam gis ne man na ko mu tàll loo xam ne tànn leen ma ñu tànn ko nun nag léeg-léeg santiment day dugal nit ci mu dugg ci loolu ku ne ko génnal du mën a génn man 2012 bi may campagne doom baay <laughs> benn slogan laa yoroon mooy mos leen daara ji dox na nag dox na ndax ba ma demee Tiwaawan moo fa fekk alxalifa sëñ Mansour si borom daara ji ma nuyoo mu ne kii nuyoo ca saal ba ne leen ko mu jàll si fii ci sama biir néeg bi mu ñëw mu ne ma honorable ma xam ne dox na gis naa fi léegi honorable Ismaïla Ismaïla Sow nooy bokk di réunion fi la ci yëf ya <laughs> waaw conseil économique social et environnemental ku yor programme bi walla ñi yor programme bi di ay député di ay maire ba di nekk président ki yor programme bi la xeet wi war tànn fal ko moo tax ëmm bu kenn defe ne wate soit la déedéet du soit de farata la ñu ne diw dafa soxla local bi diw soxla ko diw soxla ko nga ne ah sunu borom ne la tooñ nga leen ñoom tooñ nga ma man su ko ñett soxlaa mbaa ñeent bu njëkk ba ñuy toll ci jàkka dañ naan ku d'accord na yëkkati loxoom comme nañ koy defee ca assemblée wala conseil économique mais su fekkee angle bi daa gën a yaatu su boobaa ay carte lay mën a doon ak ci dentité lay mën a doon kon wuti dentité farata la cib julit am carte électeur farata la cib julit lu tax parce que ñetti candidat mën nañoo am sëriñ bi ñetti candidat mën nañoo am candidat bu bon bu bon a bon bu bon a bon a bon ku ci gën waaw te nag waaw très bien ni mën a bon nag nu la amee mën a am candidat bu baax bu baax a baax bu baax a baax a baax ku ci gën léegi nag boo sàgganee ba ki ki bon a bon a bon falu te soo soloon saw dàll ki bon mooy falu defar ki bon moo gën a yomb defar ki bona bona bon firnde ji sunu borom nee na wala taktumu shahada bu kenn ñàkk a wate am wala bu leen nëbb a shahada seede man nu ma koy tawile mooy bu kenn ñàkk lan mooy nëbb shahada mooy Mor Xuja candidat la bàcc candidat la paate candidat la ñu ne la ñoom ñett ñii ku ci gën wala ñoom ñett ñii ku ci tane ah question bi dañ nga ci war a tontu da ngay xëy dimaas boo jógee jàkk ja dem ca ñoom ñett jël ca xob daan ni kii ci tane te dem ñibbi sunu borom nee na koo gis nag watewut ci werante lay dëkk wa man yaktumha fa innahu aathimun xalbu waaw bu bu wate jotee jullit yëpp dañoo war a fexe ba bokk ci ahlul xalli wal iqd ñuy fas ak fecc bokk ci waaw man de yàlla xam ne sama waa kër dañ may yërëm wate yàlla xam ne musuma ko caaxaane jamono dafa ñëwoon sax sama dama daan watee ji mbàkke ëmma damay paas ba mbàkk sama yaay ne ma looy wut ma ne ko damay watte si mu ne ma mu yéen kañ la ko fi jar ma ne ko alxuraan a ko wax waaw mu ne ma sa ko yàlla yërëm mu ne ma sa alxuraan jii dana wax lu ne ma ne ko moo ko wax de wala taktuma bu leen nëbb mukk ashahada seede wa man yaktumha ku nëbb seede fa innahu moom mi ko nëbb aathimun qalbuhu xolam bi bàkkaar na bakkaaru xol waaw pabba ndeke xol day bakkaar waaw léegi nag loolu kon jullit daa ko war a def farata bu la kenn soññ ci wutili kart bu la kenn soññ ci wutal carte d'identité waaye nag bu la kenn yàpp balay neexal pour nga wateel ko mbokk yi nit ñëw ne la am lii te wateel ma bu la joxoon deux cent mille trois cent mille un million lim lay def loo joxagu la njëg parce que yii nga def nii moom nga paquet si jaay ko ko inna laka ala tajua fiha nga ne ko jëlal wala taara nga ne ko jëlal wa annaka laa tax moom fiyaa nga ne ko jëlal wala taddaxaa nga ne ko jëlal am loo dese te nag fii ba fii ba leneen di xewaat sa xol baa ngi nox-noxi ca loola waaye ki dem ca urne ya tànn kam bëgg a tànn féex gi muy féex bu ñibbi këram moo yàlla ko ko xam moo ko jóge fajar julli fajar ba noppi di ñibbi sa kër yéen a yem soo sa lay ub foofu rek la am assalaatu xayrum min a naw mi xam naa am nañu ko mosagut waaye cay bu ngeen ko mosee julli ji fajar jóge ca fajar ga di ñibbi sa mbub mi sa mbubb mi ngelaw di ko fay fayal noonu ba mu jam sa xol bi non bu subaa nga ñëwaat moo dàqu hôtelu cinq étoiles di déggal asalaatu xayrum min a naw mi heure bii jullee gën nelaw te benn professeur ci Suède daf doon def gëstu ci wér-gi-yaram mu ne ñi gën a mën a wér ci nit ñi mooy ñi tëdd wi nelaw ba 9 heures heure mu nelaw ba 9 heures di mat ci suba mu door a jóg nee na kooku kenn mënu koo tee wéradi mu ne ki bëgg a wér ci guddi gi da ci yeewu te bañ a yeewu bërit mu ne kon ni jullit yi def jékki-jékki ñu nodd nodd gu njëkk nga ne ñoo ko seet ne xefeet mu dóor la gu ñaaral gi nga jóg nee na loolu ñoom bu ñu ko mën a am romb fi ñu nekk noonu nag noo ko am waaye nelaw rek <laughs> yàlla nu yàlla yërëm li nuy jox lan xamut assalaatu xayru mina nawmi ëmm waxtu woowu jullee gën nelaw te julle nga gën a ca jàkk ja ma tax paa yi ko mos ak ñi ko mos fu ñu toll ña nga ca jàkk ci jigéen ñi fi ne am na ko tàmbalee mos ah oui malheureusement dañ leen di beral jàkka ah xawma cees de waaye jàkk jàkka jigéen ñi fële lay nekk fële ñu góor ñi fii te jigéen buñ ñëwee ñëwati gisuñu fa kenn daal di indi marchandise sum jigéen ah marchandise sum jigéen kay ëmma xam nga ko nag kay nañ bàyyi noonu rek marchandise jigéen noo comment bu ñaaral ba tàmbali indi jikkoy jigéen ak si toog jël sa kurus teg fii am ki bëgg a toog nga ne ko faatoo fi toogoon loolu daganut mi ngi ci jàkk yi jàkk jigéen jàkk jigéen dafa garaw ëmm jàkka yonent bi amutoon jàkka jigéen moom ca kanam góor ñu mag ñi teg ca xale yi teg ci jigéen ñi teg ci loolu jàkk jàkkaam bu sëlmalee waaxu jéggi jigéen góor ñi ñëw jàkkaarlu jigéen ñi mbaa yéen ngi góorlu ñu ne ko waaw yaa Rasulullah mu dellu ca góor ñi message boobu ñuy xëy di ko am dañ koo xañ jigéen ñi léegi ca jàkka jigéen ñi rek bu imaam sëlmalee buy wax duñ ko yëgg bu courant coupé duñ bokk waaw te technique de communication sama gars yi di di di filmer xam nañ ci dara technique de communication dafa aajo aajowoo ki ngay communiquer di la gis moo tax ngeen di compter ay vues am de waaw dama ne na ngeen def ça va très bien daal di am douze mille vie tubaab bi ne la kaay ma jox la tuut yow mi am douze mille vie baax na di. mu tax benn bis dama am conférence doom bàyyi fële ca géejawaay xale yi ne ma comme ay jigéen ngay conférence al eh, yow da ngay ne ci salle bi di wax ñoom ñu ne ci kaw di dégloo ma leen man jànguma loolu ma man jànguma toog ci salle bi naan alhamdulillah nahmaduhu wa wu ñoom ñu ne ca kaw may nañ wàcc mbaam mu yéeg mbaa mu ñibbi ah imaam buy xutba juma mënutoon a taxaw ci kaw mbaa mu toog lu tax mu yéeg ci kaw minbar ba daa bëgg ñëpp seen ku mu seen ñëpp waaw lu nu yàlla yërëm kon wote fal nit farata la tey bu élection yi législative yi ñëwee ñu war a tànn suñuy député yow mi amul carte doo tànn kenn dañ lay tànnal buñ la tànnal nag loo jot loo jot jëlal te tànn ama tànn mooy lan seet li baax nga jël la ca gën nga seet li baaxut nga jël la ca tane ku ne xam na ne bon moo tane bona bon bona bon moo tane bona bona bon kooku moom baaxul waaye tànnal ma déedéet tànnal tànnal na la jaral paas dem waaye ñun fi ne ah man nag di wax dëgg yàlla député moom jaral luñ ma dem Thiès ah du ñoom di man lam yahtam bi umaril muslimina fa laysa minhum yonent bi nee na ku penc mi yitteelut bokkoo ci penc mi ku pénc mi yitteelu bokkoo ci pénc mi waaw ëmma sama campagne ba Sénégal yëpp wër naa ko yëpp nag ndeysaan yàlla na ma yàlla yërëm <laughs> léeg-léeg jenn waay boroomu xaalis yi ni ma fu ngeen toll mu ne barab sàngam yéen am ngeen orange ma ne ma ne waaw mu yónni xale bi mu ne caw xale boobu orange ma ne xale bu baax la waaw moo ko weef noonu ñaari xale yu baax ma noonu ah dañoo sawar yónnee ndeysaan surtout weef moom daa toog def nii rek seetluwoo ko te mu bula te am yu weex yooyu aka ah, sawar bu yónnee <laughs> waaye campagne bi lay rek ko ne ma am nga gone yu mu ne am naa ñaari gone yëpp nga ne caw dara ma seet kii ñu jiite woon imaam Mbaye ñang ne ko lii ko diwa ma ko jox mu ne ah ma defoon ci campagne ngay yem ma ne ko des na gisagoo dara waaye nag daf koy jar politiciens yi leen réew mi jaral nanu ko jaral waaw damaa bëgg a defar réew mi damaa bëgg fee jële xiif rafle marak tëdd biti yow jarlu la ko dala ko war a jaral yow it yow ni la koy jarale mooy daas fanaanal am sa carte d'identité carte électeur man sax xam naa bu fi oto bi jegoon ma génneel leen ko foo ma fekk maa ngi ak moom ma wax la ko tey ëmma dem naa ndar campagne dem naa Tivaouane dem naa Touba cil ma xam mbaakol ñëw naa Thiès gi dem naa ba Kaffrine Malem Odar rekk tabarkàlla naan mos leen daara ji ak Kaolack <laughs> campagne boobu moom danaa ci bind téere il faut mu bind ci livre incha allah ndax am na ci yooyu mënuma ko ñàkk bind waaw kere ba ma demee ci sëñ euh, bi génn àdduna ndeysaan Cheikh Sidi Mokhtar comme dañuy campagne ca saal ba la ñuy mitinge waaw ma daal ne camarade rek ne ci <laughs> nekk saalu bi naan camarade ah damay campagne madame monsieur <laughs> mu ne waaw <laughs> kii mooy wax ci daal di joxañ bi kii mooy wax ci film ñu ne ko Mohamade mu ma soo noppee nga nettali ma sa ñetti sa sa sa nen ya dama foroon juróom-ñaari nen ndikkee ko mooy mooy jigéen ñoo ñu bëgg naatal seen jëkkër yi seen wujj yi nga dem ci sëriñ mu ne la guddal juróom-ñaari nen nga dem fa yoon ya tase nga teg ko fa seli bi yoon très bien nga teg ko fa jeeg ba dem teg ko fa nen ya dara sikku ci mu yónni Pape ja ne ko demal jëli ko mu ni ñi mu ko ma dem ramasser yëpp ah <laughs> nen ka annahunna baydun maknuun lu waay man ci mu nen danga bëgg dofloo ki ngay liggéeyal rek baydun maknuun la suñ borom wax moo ko dencal boppam man loolu laa gëm doom bàyyi man maa baxal nen yëpp jënd sama mburu di ndékki Pape Djenane moom jàpp na fi ngoon il sera mort waaw dama bëgg wax ne campagne yooyu nit ñiy def buñ la gën a bëgg réew mi seen coono yooyu yow tam defal say coono defal say effort fa yam yem yem fa lu dëgg su nu ko defee da nga mën a tànn yow ki nga bëgg a tànn même su gañewul na ah. parce que ki ma tànn mooy gañu it loolu du charte yaay déet bu dee ay liste la tànnal benn liste te dem ñibbi ama tànnal benn liste te dem ñibbi waaw waaye duma tànn parce que jaru ko wala ñii ko ko koo ci falit nangam ñoom ñëpp yem nangam loolu loolu su affaire na nga yëg ne tànn njiit tànn député tànn maire yooyu ay farata la de farata la de waaw su boobaa kon ñun ñëpp yëg ne nañ dem wuti ay carte toog nag di déglu campagne léeg-léeg ñu meeting woo la jaru ko di jaru ko de dem meeting ba jaru ko de xam bu yi génn ci télé bi wax ñetti yoon danga xam ñi ñan lañ nit ci message lay xame nit boo déggee message su nit da xam li xew sëriñu daara yi dafa amoon dëkk sàngam ci senegaal góor gu amoon doomam ju jigéen góor ñu bari nopp ko waaye ku ku tari alxuraan baqara ba mu la jënati yow la koy may góor ñi dem rek la gis ko dem ba nga xam ne euh, isaa jaal nga nga gàtt ñee gàcc gàcc ca nafaafaati ñu ñu ñu ñu bàyyi genn genn xëcc ga di rek ba mel na kaang moo xam ne ëmm dafa rafet ba mel ni yuusufa ñëw rek ndaw si xool ko rek ah ñi muu ko wax nag je t'aime ñi muu ko waaye daal li xol bi ëmb moom mooy mu ngoog baa ji di ko téyel pour mu tari mu jóge bàqara waaw di tari rek ñu ngi dégloo ba mu ñëw ci yaa daawuda inna xalifa xalifatan fil ard munta jàll te gone gu jigéen gi nopp na ko te càng na yaa daawuda inna ja'alna xalifatan fil ard munta jàll mu del si waaye comme ndaw saa ngay wal ma ngay wal mu ngi dégg tari bi moo koy gàgganti moo koy gàgganti ëmm li muy li muy wal mokk na kon bu dëngalee gënn gi bu dëngalee gënn gi bu ci dóoree day am son bu muy jox koy tari son bi ko jox mooy fahkum <laughs> foofu la ko gàggantee daf ni rek dëngal gën gi rek na ko ci kuruj gën gi ne fahkum fahkum mu ne fahkum bay na naasi paa bi ne ko doy na neel sadaqallahul azim <laughs> mu ne sadaqallahul azim mu ne ko kee di moo la gàgganti ndax gis naa ne dalaa nopp wool say bokk ma may la ko ëmma message laa bëgg a wane ne message kon boo toppee ab campagne kat déglu ko benn yoon ñaar yoon ñett danga xam li mu ëmb lépp ak fi mu jëm boo ko kee defee kee def ko kee def ko ñoom ñëpp boo ci tànnee kenn liggéeyal nga réew mi liggéeyal nga sa bopp boo parloo nag du baax yonent bi nee na yàlla nee na ko lu xeet yu bari bari ku parparloo génneel ma ko ma duma waaw Oustaz Mbaye lu sunu borom lu addis ba wax man man maata mutaasiban daxala naar ku parparloo yàlla la ko ko far nag dagan na faral waaye bul parparloo ndax boo parparloo yàqal ki ngay faral ndax mën naa naan ndox mu wërta naan par parparloo tax nga ne cell waaye su fekkee dangaa far nag ki nga faral mën na laa jëriñoo ci kaw xam na ne doo ko dépassé doo ko déranger mi yaa ngi wax dëgg alxuraan nag daf ne dëgg yépp nit ñi li ëpp ñoom bëgg ñu dëgg walakin akthara nnaasi lil haqqi kaarihuun te ñu ne la booy wax waxal dëgg ëmma ko noo war def xam nu ñuy waxe dëgg waaw juróomi dëgg kenn du ko boole jox nit ñeenti dëgg kenn du ko boole jox nit kuy jox nit dëgg par benn nga di ko jox ba mu mën dëgg loo ko waxati mu jël waaw walakin akthar nnaasi lil xaqi kaarihun ku parpar la nag doo ko def lu mu wax rek nga ne baax na ci politique dafa am nag lu ci bees lu ñuy wax parité allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ashhadu anna muhammad rasulullah la hawla wala ولا ولا bi nee na ku dégg ñuy noddu del wax la noddukat ba di wax mooy tax nga am carte d'identité ak carte électeur nee na aljanna dafa am benn appartement ca kaw firdaws kenn képp moo ciy dëkk te yónnent lay doon ku dul yónent doo am doo doon candidat yónent nag nee na moom candidat la bu sañoon jot ca mu ne bu noddkat bi nodd nga di ko toppandoo am nga sañ-sañu wate su daanee léeg nga wate ñu ne ko nu ñuy watee mooy danga naan allahumma rabba haasihi daawati taamma wasalaati alqaa'ima aat seydina muhammadan al wasila wateel naa ko pour mu jot ca wasila te mooy appartement boobee ñun tànt bi yëpp yaakaar naa wateel nañ ko tey bis ba ñëw <laughs> ak ni ma ko ko yéenee maa yàlla ko xam moom rekk laa ko yéene ci candidat yi hmm? te nag nee na su ca jotee xam nga ñi campagne léeg-léeg ñu ne su ma ci jotee def nangam am déet waaw su ngeen ma falee dëkk bi set waaw su ngeen ma falee euh, aaw yi bañ wujj wir su ngeen ma falee kum neex comme sa yoona bi nee na buñ ko falee ba mu jot ca kër googee mu rammunu ah waaw way moo ko wax de mu rammunu kon am <laughs> mbokk mi neen yàlla ko yàlla jox amin moom kay wate gi mooy bu ñu nodd rek toppandoo ko bu noppee nga ne allahumma rabba haasi daati taamma wasalaati alqaa'ima aati sayidina muhammadan al wasila bu ci jotee rek suñu affaire baax yàlla na ci jot dama doon jeexal ëmm ci dafa am lu ñu dee parité parité jigéen ñi ñoo yoroon benn vitesse ñoom soxna baas ñoo yor ñoo yor benn vitesse ba fi nekk nag mi ngi ñoom parce que xam nga jigéen politique am dafa xaw a social am déet te amutu fit moo tax du këpp kees ñaare lu néew lay këpp kees ma wax la ko tey ñàkk fit woowu moo ko dugal ci du def accident bu garaaw waaye social geeg xam nu ñuy politiquer dañoo jëkk jékki gis ko ci ñoom xam ngeen Aminata Mbengue Ndiaye ah ka dëkk xombal lu mu tudd Aïda Mbodj wala Bambey ki ngeen dëkk fii mu sant Tine <laughs> konteel konteel konteel bu leen bàyyi woon ak seen bopp képp ñu campagne ak seen list képp léegi tey assemblée jigéen ñi kese fay nekk maa la ko wax ñoo dañoo social ku ñu woo nga wuyu si leen laaj leen waaye parité ñoo ne hee doo daan baa ngi nii ku ko yéeg rek rétrograteel première dóor ko yéeg loolu moo bëgg a yo do yéexal doxub jigéen ñi moo tax les élections yii di ñëw ñu ne la góor jigéen góor jigéen góor jigéen foo jële jigéen ñooñu ak foo jële góor ñooñu te nag ma man mii xam nga parité ma tee dem assemblée ah oui ah ma noppi sax man <laughs> dégg nga politique mbokk yi lu am solo la lislaam séexluwu ko bañu ko araamalu ko au contraire daf ne def leen ko bi yonent bi ñëwee Madina su ko doxalutoon day agsi rek ñu song ko yàlla boole jàmmal dégg nañ noddukat bi du noddu ci Cheikh Al Hadj nee na kuy war raw ay buum ba say sëla nàmp doo bëri soow na ci waxtaanu diina ba ñu noddu li xam te dimu mooy ku moo kuy rew ay buum ba say sëll namp ñooyam képp kamal yàlla nañu fi yàgg fekk euh, te yàgg laa fekk ak sa mbokk yi wax dëgg yàlla mu ci saa boo leen waxee ñu wuy si la ñëpp wuy si nañ la maa ngi ñaanal ci kaw ñëpp ku lim juum di ñaanal ci karam ñëpp ci di leen jégalu waaw genn ñaan rek nag laa am mooy yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa